Talfa ziar nañ la màggal naa la naka tey. waaye tey jii nii rek delloo ziar bu wér. jàmm ji jàmm jaay bi nga bëri rek gis ñu la boo nekkoon. non maam rek sama maam moo xew la quoi. sa maam maam moo xew la maam la. aara sa maam la waaw dañoo doon waajandoo combat bi waaw. ki ngeen jël arobas. non man moom arobas xaw ma ko quoi kii laa xam kii wóolu naa ko ku ne xel day dal waaw. combat bi seen dugg si ñu gis aada booy beneen aada booy bool gis nga ko ci combat bi. kii mooy borom dëkk bi gars yi dañu waa simple loolu namm ma xarit dafa gëj a bëre waaw lépp nag ngir adversaire yi la waroon bëre kii sax ñeneen la waroon bëre waaw. soo xoolee moom moo gën a naqaree wutal adversaire. waaw xam nga rek moom ba ba léegi làmbal nañ ko ku ne mais yow xam nga ne aara warul bëre kii waroon na bëre ñeneen. fi mu toll nii aara moom lay bëre. waaw moom lay bëreel dañ koy defaral ak seeti leen. incha allahu rabbi di ñaan borom bi maye ndam mu may ñu ndam waaw. Talfa lu xaar. non man gars yi nag Talfa lekk na avancé. non man lekkuma dara gars yi laay xaar rek. combat bi ñuy dégg na. man combat man lekkuma dara waaw. sérieusement. lekkuma avancement man maa ngi nii rek. dégg Tapha Leer. promoteur na ñëw. di nga dégg Tapha Leer gars yi ñu ko. waaw man naam gars ñu koy dox suuf mais si man quoi waaw. bu nekk tey jii pour di nga dégg Tapha Leer. non man maa ngi fi ak mbër yëpp man fii rek laa bàyyi ak di ñaanal bi la zer ndam. waaw bi la zer wax dëgg yàlla sama waay la quoi koy ñaanal ndam sedd waaw kon léegi avance ban moo la gënal ndax dañ ngi wax diggante sa diggante ak Tapha Leer ba léegi dégg guñ ci lu leer waaw man moom déggoo lu mu laax adversaire ñëpp laa fi nekkal man làmb laa opté mooy sama métier moo tax ma bàyyi lépp moom laa suivre ku ma la boolal ak dañuy jëflante incha allahu rabbi waaw lan lañu mën a xaar si Tapha bi gars yi dañ ko namm gémeur bàyyi nii waaw waaw rendez-vous waaw la kii le huit janvier incha allah waaw